page yi daanaka wër na àdduna bi yëpp li nga xam ne kat mooy ay taskatu xibaar yoo xam ne dañ leen a duba ñii nag moom ñu def leen naka su li ko wër ba tax na loolu daal askan wi doon ñaawlu li nga xam ne kat moom la ñu dàq élection présidentielle bile waaye tax na daal ka nga xam ne kat mooy taskatu xibaar te nekk ca seen web di ab sa ana moom nag dañ ko daal di ya méttital teg ko loxo laata ñu ko yóbbu fa nga xam ni mooy ca l'hôpital la Isabelle Bampoki moom it daanaka sax sonal nañ ko lool moom taskat xibaar la ci Addi TV Mor Amar bu nekk ci quotidien enquête moom itamit dañ koo dóor ndax lañ koo wax rek mooy daal circuler ba tax na ndey teef bi nga xam ne moo jiite kepp ku taskat xibaar di waa Synpics ñoom neenuñ kat lii du dëgg du yoon na ndax gis nañ ne jëf yuqu njuur yooyu nga xam ne daal moom da takk day defa dañ koy daal di ñaawlu ndey teef gi nag nee na dañuy sàkku rek ci jëwriñ ji mu ubbi ab enquête préventive ci nu ma gën a gaawee ndax lii nag moom duñ ko bàyyi mu sedd Sénégal ñoom tamit ci benn bataaxal daal di réagier ci li nga xam ne daal moom la jàpp ne ab agression la ci ay tasul xibaar gis nañ ne taal na ne reporter yu bëree bëri ñoom daal leen agressé ca la ca gën a bëri mooy ay jigéen na ba tax na waa convention des jeunes reporters yu Sénégal ne kat lii nag moom daanaka sax liberté taskul xibaar yi da ko daal di sañ faañe kuréel gi nga xam ne moo ëmb ay jigéen te liggéey ci wàllum tasar xibaar fii ci Sénégal ñoom itamit dañoo génn seen pataaral ga nekkoon ne lii nag moom dañ koy ñaalu ndax métital gu ñuy métital taskatu xibaar rawatina jigéen ñi jaarale ko ci ñi nga xam ñooy takk der loolee du dëgg du yoon kuréel gi xam ne dafa daal di ëmb ay jigéen yi liggéey ci wàllum tasum xibaar ne lii nag moom duñ ko seetaan ndax gis na lu ëpp tuuru waaye tamit di daal sàkku ci jëruñ dénk wàllum kaaraange réew mi moom mu am ci saafara kuréel gi nga xam ne kat moo daal di ëmb presse libre ci tëndu Afrique ñoom tamit daal di ci jokk ne daal li nga xam ne mooy autorité sénégalaise yi lañ war def mooy fexe ba liggéey tasar xibaar yi gën a yomb gën a woyof waaye tamit ñi nga xam ñoo takk der yi gën leen a yombale seen liggéey waaye tamit di sàkk ci nguur gi mu delloo groupe Walfadjri ab licence am